salaamaaleykum mbokk internetu euh, Sénégo tey fii ñu ngi fi toog ak benn dignitaire euh, bu bëkk fii ci réew mi mi Hadj Mansour Mbaye kenn du ko présenté kenn euh, mu am loo xam ni dafa xew ci bërki démb ci julli ji président de la république Macky Sall woote dialogue politique wala boog dialogue national ne na ma ñëpp wuy si ñu waxtaane réew mi nga nekk koo xam te ni yaay président des communicateurs du Sénégal mu am kaddu boo xam te nii nit ñi ñu ngi ko ci séenu pour nga pour nga pour nga wax ci moo taxoon Sénégal ñëw seet si la pour nga am loo ci àddu ci loolu. asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu sénégalais yëpp ak sénégalaises yëpp di ñaan weer wi yàlla bu mu nekk sunu mujj koor di ñaan réew mi fi yàlla def jàmm di ziar bu baax Sidi Boubacar Sy mooy sama doomu turandoo mooy xalif général Tijaan yi di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wir ba nu ànd ak moom inauguré juma ji xam ni maamam Cheikh Sidi El Hadj Malick moo ko sampaloon sunu ba tabaraka wa taala di ziar bu baax Cheikh Sidi El Hadj Malick ibnu El Hadj Abdoul xaritam soppeem di ko ñaanal yàlla may ko wér lool ak gudd fan di ñaanal sang ba xam ni moo doonu sëñ Basiru doonu xaadim rasul di sëñ Muntaxa di ko ndokkal ci université bu mag bi mu defal maamam xaadim rasul di ko ñaanal lool gudd fan ak wér ak njabootu xaadim rasul yépp ak kilifa diine yëpp ak kilifa aada yëpp di ndokkal it ñi xam ni ñoom itam barki dem la nu wari indil nu ay galax nun tam nu wari yóbbu leen ay yàq ndax réew mi république léegi la ñu nekk mooy église bi noo ngi leen di ndokkeel ñoom itam li tax nag Sénégal ñëw fi tey seen directeur bu baax bi yebal technicien yi mooy fii réew mi toll duñu bëgg ñëpp woote jàmm la Cheikh Abdoul Ahad waxoon ni jàmm moo gën fii moo gën fële mais fàttali rek xale yi ak jeunesse bi ak mag ñi li xam ne moo fi amoon de 1945 à 1960 de 1960 à 2012 ñaari député noo fi amoon kenn ki mu ngi tuddoon Lamine Gueye en 1945 le premier avocat noir de l'Afrique occidentale française kenn ki mu ngi tuddoon Lamine Gueye le premier avocat noir de l'Afrique occidentale française ñoom ñaar nu bokk benn parti di la parti socialiste ñu dem ba 48 Senghor ni am na lu ko naqari ci parti bi bindu Guy Mollet qui était le secrétaire fédéral du parti socialiste en France bindu Lamine ni ko demee démissionné muy nu woon coow lu rëy Senghor dem Lamine dem ku ci ne nekk sa parti ki forme la BDS ki nekk le parti socialiste ñu ne ba cinquante et un le 17 juin cinquante et un Lamine Gueye jël ku ne wax Ousmane Socé docteur vétérinaire di lébu bu rëy Senghor jël ku ne wax Abbas Gueye nu wote Senghor gagné ñu dem ba en 1956 ñu wotewaat élection à l'Assemblée nationale française Senghor ànd ak ku ñuy wax le président moom Mamadou ja Lamine ànd ak ku ñuy wax Assane la l'agrégé en grammaire nekkoon Casamance Senghor gagné Senghor rek li mu gagné gagné gagné Sénégal nekk député à l'Assemblée nationale française moo Dia wala à Abbas taxul mu am majorité à Dakar taxul mu am majorité à Saint-Louis taxul mu am majorité à Gorée taxul mu am majorité à Rufisque Rufisque sax dem na ba yàgg mu sax bàyyi Lamine dem ca Senghor waaye capitalu l'AOF muy Ndakaaru capitalu Sénégal muy Ndar Senghor Lamine di ko fa gañe rek mu tàllal loxo Lamine nag ni ko Pape Lamine réew mi yaa ta yaa fexoon ba mu ñëw fi ba nekk tribunal assemblée nationale kaay di juboo tàllal ko ko en cinquante deux tàllal ko ko en cinquante six Lamine ni pat rek ba yàgg nag ay nit ñu baax jóg dem seeti Lamine waxtaan ak moom ni ko waaw Senghor mii di la tàllal loxo ni def bugg jubóog yow ak réew mi xam ne yu bëri am na fi les événements de Kagnon bon quatre personnes lañu doyee Lamine Gueye président Senghor duñu ko rawalee Kër Madiabel président Senghor duñu ko rawalee à la mairie Dakar Lamine ni leen lu ñu leen bëgg ñu ko juboo mu ne waaw ñu leen Senghor na ñëw sama kër Senghor déplacé te booba secrétaire d'état au gouvernement de Edgar Faure en France dem këram ñu ko Papa Lamine dama la balu ak ci li fi jaar yëpp dama bëgg lu juboo Lamine di ko waaw léegi bàyyi ma je vais réunir le bureau fédéral du parti socialiste réunir le bureau fédéral boobu ku ñuy wax du Babacar Sarr mooy secrétaire fédéral du parti socialiste du Sénégal et de la Mauritanie parti bi di ko jox nun la carte blanche mais seconde nu wax rek lu mu lay jox Lamine wax Senghor li parti bi wax mu ne ko Cotteron président de l' assemblée nationale deuxième personnalité de l' état dinaa jël kenn it def ko ministre dans parti fab ku ñuy wax Amadou Babacar Sarr mooy Chopard moog Ibrahima Sarr mu ngeen déggoon ci coup d' état ba wala coup de force ba ñoom ñaar noo bokk deeg bàyyi fab Chopard du travail et des affaires sociales réew mi ci jàmm nu àndandoo àndandoo àndandoo ba suur boobu tabaraka wa taala def li xew ba Lamine génn àddina en 1968 Senghor seede ko seede yu rëy lu xewaat ku ñu wax Abdou Diouf motion de de sa promotion à la France d'outre-mer ak kan ak ki Mamadou Diagne woon géen ñunu ma coup d'état defu ma coup d'état waaye tey avocat bi ma bëgg mu mujj wax ci avocat wax ma ñu France waaye sénégalais la ñu ne ko mu ne il s'appelle Abdoulaye Wade mu mujj wax keroog lu xew Abdou Diouf nekk ci réew mi moom itam réew mi yëngu lool surtout en 88 ak yeneen année yi ay gor seeti ko ñu ko teega talal loxo seen nijaay politique am na waaye mbokk am na mu ne danaa ko tàllal loxo ñoom Madické Niang ñoom Idrissa Seck et tant d'autres ko waaw looy jox Ablaye Wade mu ne je le nomme ministre d'État Idrissa Seck je le nomme ministre du commerce Aminata Tall je le nomme ministre de la femme di teg jàmm am partout à travers le Sénégal moo fi xewoon bu njëkk ana lu xewaat mooy Ablaye Wade dem élection Idrissa Seck dem élection Tanor dem élection Moustapha Niass dem élection sunu borom tabaraka wa taala bi xam ni moom moo joxe nguuru kenn du ko jox ku du moom jox Macky Sall nguuru gi muy gardien de la constitution comme ni ma ko koy président <laughs> de la république te ni ma ko koy waxee président de l'espoir l'homme de grands chantiers de l'État comme ni ma ko koy waxee mu nekk moom itam ci réew mi ay Sénégalais yi nag nu dar ko ñuy doxal di doxal di doxal di doxal ba mi xaw aw yëngu-yëngu le trois avril mu def déclaration bu rëy ni waaye tàll naa loxo waay Sénégal yi xam noonu maa ngi ñoom noo bokk Sénégal ñoo leen di discuter waxtaan solution mën naa ku ne mën ga nekk sa parti bu ëllëgee nga wuti président de la république mais nan waxtaan pour l'essentiel réew mi ni teg nu jóge ci weer wi gën ci weer wi weer woowu ëmb bis bi gën ci bis yi muy leelu tu xata yi mu dem koy génn ba mu julee ba pare di tallalaat loxo opposition bi pour nu ñëw nu waxtaan ci opposition bi la Ablaye Wade waxoon ni am na opposition kañ mais opposition républicain laa am muy Ousmane Tanor ak Djibo Ka kon nuy ñaan réew mi jàmm ji président de la république di woote sunu borom tabaraka wa taala mi xam ne dara tawu ko jàmm jooju yal na ko yàlla def ci réew mi am ngeen seen maam mu nuy wax alaaji bu tedd ba ne boo amee sa ëmb mu nekk ci gaal xalifa bi ne bul ñaan ëmb mu mucc ne ñaanal gaal gi mucc ne bu gaal gi mucc rek mucc na ci nun ñëpp ci benn gaal loon ne mooy Sénégal euh, président de la République euh, tàll na loxoom daf daf benn appel bu ko defee opposition bi pour ñëpp ñëw ñu toog ñu waxtaan opposition bi ca ëllëg sa wala boog ci ngoon si ñu bëri dañu ko gantal est-ce que yaakaar nga ni yow wala ñeneen ñu mel ni yow mën nañu def ay médiation dox tànk jàmm ba euh, waxtaan boobu ak gise bi mën a nekk ma ne maa ngi xalaat seeti nun ñu baax ñi xam ni noo nekk ci réew mi nu dajaloo seeti yëpp seeti la parti au pouvoir seet la parti de ndax réew mi ñun ñëpp doo ko bokk ci président Macky rek bilan jotagul waaye bilan ñëpp teg nun seen bët bu dee la jeunesse am na loo xam ne ma suñu ko am mukk ci ki fi jikkoon l'agression en grand ak ak ki xam ni monsieur de sa promotion à la France d'outre-mer di Abdou ak ki xam ni moo ni woon dem ngeen demi final mais dama leen di fay comme ñu dem final di coupe di coupe di coupe d'Afrique Ablaye def li fu loolu jeunesse bi ngeen tombeek ku xam ne bi mu ñëwee am nañu coupe d'Afrique maa ngi ko tuddee sax léegi vainqueur des coupes d'Afrique ndax du benn coupe rek la du am tabax lu rëy lii stade Abdoulaye Wade arena ak lan foofa lañ doon bëree ak Souley Ndoye ci critique ya mu fexe ba def arène national dégg li mu wax ci paysan yi wax na ko ci ñëpp dëkk boo dem daa ko fekk déggoo la ko <laughs> xam-xam bu borom xam-xam bu réy bi wax Idriss Seck nee na ko solution dama yaakaar rek rek ni mu ngi yem fii ci Sébikotane wala Diom ñaajo ndeke weesu na à travers le Sénégal kon Sall ce bilan ñëpp d'accord nunu ci waaye nag loolu yàlla njukkal woote bii nga woote loolu la yàlla bëgg waaye bul tàyyee nag Senghor woote na juróom-ñaari at Lamine Gueye soog koo wuy ji Abdou Diouf woote na lu mat juróomi at Abdoulaye Wade soog koo wuyu kon yow itam bul tàyyi di woote pour l'intérêt de la nation sénégalaise di la gërëm nag ak di la sant ndax ci dëgg-dëgg ba nga nekkee ci réew mi ba tey mosuñu di ki benn baat boo wax du trop nit bañ a nelaw ñu nit tey Macky Sall moo ko wax waaye de loolu yàlla njukkal nag wootee rek bul tàyyi di woote gor ñu baax ñu nekkoon ci réew mi ndax bu njëkk di wax alhaji Ibrahima Diop a ngi fi Mboor Diagne ngi fi alaaji Aliou Dieng a ngi fi Ousmane Diop Kuba Paate ngi fi nga dem Ndar nun la alaaji Maxtaar Ndiaye gaaree ngi fa ñoom Assane Diop Paate et tant d'autres ñooñu di fexe ba ñëpp juboo nu bëgg it mag ñi xam ne noo nekk ci réew mi di ay kilifa ñu seeti président de la république waxtaan ak moom seeti les partis d'opposition waxtaan ak ñoom pour jàmm am ci réew mi jàmm sax am na fi ndax ci dëgg-dëgg la Senghor waxoon wal joojo waali j'aime bien la démocratie je suis d'accord j'aime bien la liberté de presse wal joojo je suis d'accord mais waali je n'aime pas l'anarchie ñu ñaan rek ci dëgg-dëgg réew mi ñu nekk ci yenn parti ak le parti au pouvoir noonu waxtaan noonu seen biir Sénégal rek la ñu am munu waxtaanee seen biir nu mënuñu jubóo sur l'essentiel bu élection jote ku nekk tente chance wutil le suffrage universel du peuple sénégalais loolu mën na fi am di wax jeunesse bi it yéenay wut yéen yéenay remplacer yi président de la république jeunesse bi yéenay remplacer yi président du conseil économique social jeunesse bi yéenay remplacer yi Aminata Mbengue Ndiaye kon réew mi seen réew la yéena ko moom kon liñ leen di ñaan mooy dal am yar am teggin ci ngeen di fàttaliku nag seen i waajur seen ndey seen baay yi ak seen tante yi ak seen jigéen yi wallahi ci yéen lanu compté école de formation yi bari na université yi léegi bari na fexe leen ba am ay diplôme yu rëy bu bu ëllëgee bu ngeen doonee mag ñii def lu rëy ci réew mi ñuy ñaan ne ñëpp dal yi am nag am na yoo xam ne kenn du ko fàttaliku nan fàttali lépp ci jublu rek pour l'intérêt de la nation l'intérêt de la nation moom rek moo am solo seen baay sang ba ca Touba ka doonoon xaadim rasul Cheikh Abdou Lahad ne jàmm moo gën fii moo gën yom a xiyaamati seen bàyyi alxaaji Abdoul lu mu wax ni kii dafa am lu mu yore ci loxoom kii am lu mu bëgg ci loxoom kii bu tëggee lii lii lenn jox ko moroom moom juboo daal di am kon nan woote juboo ci réew mi président noo ngi lay ndokkeel it ci at mi di la ñaanal yàlla may la gudd fan yàlla may la wér di ndokkeel parti d'opposition yi ci réew mi yëpp ci at mu bees mi yal fi yàlla def jàmm yal yàlla yokk xéewal yi waaye réew mi yéen a ko bokk dara ma su fi ñaaw adversaire politique am na waaye nag ennemi politique bu mu fi am ndax Lamine ak Senghor métti woon na Abdou Diouf ak Ablaye Wade métti woon na waaye jàmm rek moo ci mujj kon nag nuy ñaan sénégalais yëpp ak sénégalaises yëpp ca dëgg-dëgg nu delloo si seen xel ca lépp loo xam ni république bi laaj ñu ko ci jàmm sunu borom tabaraka mi xam ne am na jàmm yal na ko yàlla def di ñaan mag ñi ci réew mi ñoom ñëpp kuy kilifa ci diine yaa ngi wax jàmm kuy kilifa aada yaa ngi wax jàmm kuy kilifa yaa ngi wax jàmm kon xam ngeen senegal Sénégal jàmm rek la bëgg ca wallahi li am wallahi réew yu bari amuñu ko mag ñi fi tëdd it réew yu bari amuñu ko kon sunu réew mii nuy wax Sénégal ñun rekk noo fi amoon école normale William Ponty noo fi amoon école Blanchot ñun rek la tubaab yi wóolu woon di fi def ay moral prom ak moral frère ak espoir ak nosoko ca boobu réew yëpp ngi fi AOF ngi fi woon waaye ñun la ñëpp wóolu woon ngir lan ngir sunu yar sunu teggin ak sunu honnêteté ak sunu yaatal loolu ba tey moo Sénégal kon duñu ñaan Sénégal yi yëpp yàlla mi xam ne dara tëwu ko bala fi am ñaari weer wala ñetti weer wala ñeenti weer yàlla na ñëpp jubóo ñëpp bokk ndey ñëpp bokk baay am na yu am yu yooyu yëpp nañ ko fàtte rek ci ñëpp ñu xam rek Sénégal rek la ñu am di ndokkal ñëpp nag président maa ngi ciy profité it di la ndokkal bu baax a baax nag ci at mi di la ñaanal yàlla may lu gudd fan yàlla may lu wér sa projet yëpp yaa nga ko yeggale. di ñaan li sa jabar Marème Faye Sall les grandes dames passé ñu fi nag ñu baar ñu ñu ñu xam ni réew yi xam nañu leen di président Senghor ñëpp xamoon na jabaram ni meloon di président Abdou Diouf solidarité et partage du éducation et santé du président Abdoulaye Wade waaye Marème Faye Sall yi servir le Sénégal ak am yar am teggin nekk ca jàkka ya nekk ca jumaa ya nekk ci église nekk ci jeunesse ba di waxtaan sax ak ñi xam ne noo opposé ñoom ñëpp pour réew mi rek am jàmm noo ngi koy ndokkeel moom itam ci at mi di am nag sunu kàddu goo xam ne noo ngi ko yëkkati jëmee ko ci nag ci le directeur de Sonago ndax lépp lu xam ni jàmm la boo demee Sonago wala nga dégg ñiy wax ci Sonago jàmm rek la ñuy woote ndax directeur général bi ak technicien yi nekk Sonago lu nu bëgg mooy jàmm bu nu amul jàmm <laughs> na ñuy mën a waxtaane na ñuy mën a na ngeen ma mën a gisee nii ci télévision ba mën a waxtaan kon nañu ñaan jàmm Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy El Maktoum maa ko seeti benn bés mu ne Mansour mën ko si munu ma réew mi yëngu na ma ne ko lool lool lool munu waaye rek incha allah yàlla dana fi def jàmm ndax mag ñu fi ne am nañu ngërëmal yàlla ku am ngërëmal yàlla jàmm rek ngay am réew mi daal maa ngi nuyu ñëpp nag ak sénégalais yëpp ak sénégalais yëpp au nom de tous les communicateurs traditionnels du Sénégal lépp lu xam ni wax naa ko fi ca jaaduwul maa ngi koo balu di baal àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan sunu borom tabaraka wa taala koor gi yàlla bu mu nekk sunu mujj koor ci daraje Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu mbokk yëpp nag maa ngi leen di ziara sénégalais yëpp ak sénégalais yëpp ay wulëre laa fi am ay xarit laa fi am ay soppe laa fi am yal na yàlla tàppi xol yi comme ni ko sunu baay alhaji Abdoulaye daan wax ba parti yi ñoom ñëpp nu juboo sur l' essentiel waaye bu nu juboo sur l' essentiel su ëllëgee en deux mille vingt quatre ku ne mën nga delluwaat sa parti présenté pour laaj suffrage universel de ton pays chacun est libre waaye nag xuloo rayante sànni xeer lëkk ay kër yooyu du jàmm réew jàmm réew mooy xol yëpp nekk benn yal na ko yàlla def ci daraje sang bu tedd ba tëdd ci Medinatul Munawara di Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gis nga président Senghor a ngi nii kii mooy Amadou Babacar Sarr secrétaire général du parti socialiste gis nga maa ngi nii Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo ma yóbbu fu ñuy wax réew ne ma sa xaftaan yi dafa gudd lool ak sa mbubb yi ngay ànd ak sopaar maa ngi nii collecte gi nii ca booba moy bi ñu fusionné ci la ñu jubóo ànd ak Senghor Ah, en 1957 Lamine Gueye tàllal ko loxoom nu tàllante loxoom nu juboo gis nga nii ni nekk benn kon réew mi ñoo ngi fi na fi yàlla def jàmm yal na yàlla tàppe xol yi comme ni ko alxaaji Abdoul Aziz bu tedd ba daan waxee Maodo lépp lu xam ni sëñ Abdou daan na ko wax ne am na yu xam ni kenn du ko nettali lu ñaaw kenn du ko wax dégg nga sëñ Cheikh Fatma mooy taaw Seydi Mouhamadou Moustapha Mbacke lu wax ku xam lu baax wax ma waaye ku xam leneen denc ko Cheikh Mbacke ba lu baax rek la bëgg dégg kon réew mi yal na fi yàlla def jàmm Maodo. Euh, jërë ngeen jëf euh, mbokk internaute euh, dégg ngeen appel boobu nga xam te ni moom la Hadj Mansour Mbaye joxe mi président des communicateurs traditionnels neen ne bu kenn fàttaliku ndaxte ku fàttaliku sa xol dina yëngu. donc nañu tànkam lu euh, yenn métit métit yi fi am manifestation fi am yëpp nañ ko fàtte buñ ko fàttali ko nañ ko fàtte beneen tam mooy ñaan euh, ñi nga xam ni ñooy euh, kilifa diine kilifa aada ak kilifa goo mën a doon ñu joxante loxo dem toog waxtaan ak président de la république waxtaan ak parti d'opposition yi pour que jàmm dellu siwaat ci biir réew mi beneen bi tam mooy mu def exhortation boobu mu def def benn appel à la jeunesse xamal ne xale yi réew mi ëllëg ci seen loxo lay mujj donc nañ ko nañ ko taataan suñu ñaar loxo bañ a yàq dara bañ a toj dara ndaxte ëllëg bi euh, ci biir loo ci toj loo ci yàq loo ci lakk yaa koy réparé waat yow bi nga xam te ni yaay ndawu réew mi kon mbokk internet yi donc daje baa ngi noonu ak Hadj Mansour Mbaye euh, di ñaan yàlla euh, moom tam yàlla yàggal ko fii gën a wéral cëram guddal fanam incha allah ak yeneen mag ñi nga xam te ni liñ fi nekkee mooy di wax lu baax di ñu fàttali ëllëg li fi amoon dégg ngeen sànq ci waxtaanam fàttali ñu jox lañu benn historique boo xam ni ci wàllu dialogue amoon na fi depuis euh, Lamine Gueye euh, Mamadou Dia le grand Maodo Senghor Abdou Diouf Abdoulaye waad et cetera donc loolu tam l'histoire doit se répéter ci diggante Macky Sall ak euh, parti du wala bokk ak opposant yi nga xam te ni ñoo fi nekk fii ci réew mi kon boog ñu leen jox dig daje beneen yoon incha merci beaucoup.